nga xam ne moom mooy xaar Amadou Ba mooy mu fexe ba bloc bi nga xam ne moo am ci biir Benno Bokk Yaakaar mu fexe ba loolu mu mën di continuer président Macky am na taxawaay koo xam ne may na ko ba bloc boobu mu mën ko téye 2012 ba tey jii Amadou Ba loolu mooy défi bu mag bi koy xaar ndax li nga xam ne moo am solo te ñëpp war ko xam mooy du ay nit moom la ñu war a xool mais li mën a tax ba Benno Bokk Yaakaar mu mën a gagné. loolu am na solo ci li tax président Macky am tànneef bu